aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wajal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa xal bi arsida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen eh, ziare di jiital eh, ci nuyoo bi ak ziar bi cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke di ko ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax niki noonu la ñuy ñaanal suñu jàmbaar ji jàmbaaru xaside yi di sëriñ Amsatu Mbacke moom sëriñ Sohaybu bu suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax mbokk yi ku gisati jataay yi nga xamante ni ñi ci di waajalati bisu mag bi nga xamante ni mi ngi am uh, fële ci réewum France muy màggalu xasida yi te ay murit yu am pëseefu dogu dégg fa amal bu buñ ci tuddee uh, kenn rek day mel ni matale ñëpp Sëñ Xaadim Sylla moom la ñuy jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo mu nuyoole ko bépp mbokk taalo yi nga xamante ni it ñoo ñuy teewlu te nekk foofu ci Paris seen wàccaay yi nga xamante ni nag mooy wàccaayu bis bi saa su nekk ngeen ñuy miine ci programme buy mënti ñëw moo xam fii la ci réew mi ak ci bitim réew rek ñu koy ànd ak yéen tey jii nag mu mel ni ñu ngi toog ak kenn koo xamante ni it kenn dootu ko nuyoo lekk ñooñ xasida muy Serigne Saliou Mbacke xasida macha allah mu doon it moom it kenn ci mbooloo moomu nga xamante ni it ñooy amal liggéey bu rëy boobu fële ca Paris mën ñoo wax ci cëslay cëslaayu bis bi nga xamante ni mooy am foofu ci Paris lu yaatoo yaatu waaye xam naa ci tënk rek dañ koy jox ginnaaw bu mu nuyoo rek mu wax ñu lenn rek ci bis bi nga xamante ni mbokk taalibe yi ñu ngi koy amal fële ca réewum France mu doon 9 euh, mars incha allahu rabbi 2019 bi ñu nekk mu mel ni ay fan yu néew ci des te macha allah ngeen gis taxawaay bu am solo boobu nga xamante ni saa su nekk ñoom it ñi ko fay amal foofu ci France di ci def ay plateau ay jataay yu am solo yoo xamante ni ngir ñooñal bis boobu nga xamante ni te moom la ñuy amal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi la delloo am nuyoo sëñ Modou ak ñi nga àndal liggéey bi ñëpp di nuyu ñu ñuy diglu ak seetaan ñëpp itam di ñaan sëñ Tuubaa mu dimbali ba lii nuy bëgg a wax lu dul moom rek génn ci lu dul moom nag mooy àdduna sëñ Tuubaa demewut ak àdduna nenn waaye saa yoo génnee génnee ci sëñ Tuubaa rek yaa ngi ci àdduna te àdduna ak sëñ Tuubaa duñu ànd mukk dafa waxoon ne bi mu jógee dafa doon daw àddina di daw di daw àddina topp ko mujj boroomam ne ko taxawal mu taxaw <clears throat> bi mu taxawee nag àdduna ñëw wër ko fépp ba tax nag ku bëgg a accès euh, ci moom da ngay jégg àdduna yal na nu yàlla defal kàttanu mën koo jéggi ba du feeñ ci suñuy wax du feeñ ci suñuy jëf du seen feeñ ci suñuy melokaan bu ko defee liggéey bi ngay laaj nag mu jëm ci liggéeyu xasida yi boobu yi ñuy amal ca dëkku tubaab yooyu yi nga xam ne e, tumuranke gi sëñ tubaa tumuranke woon bàyyi ay këram mu tasaaroo ay e ñooñam taqali ko li ko dal lépp dal ko ci ay wéetaay tumuranke ba tax na nee na am na juróom-ñaari at ci seen biir yoo xam ne yii gisu ci lenn gisul mag gisul ndaw gisul góor gisul jigéen dara lu moom néew ci loxoom du addee buñ ko jox du sarax buñ ko jox muy fóotal boppam di toggal boppam lépp mu di ko defal boppam lépp lu ñu xam ne war na koo naqar yi ñu def ko ko <coughs> waaye teewul gis bu leer bi ko yàlla mayoon moom sëriñ bi tax na lu ne daana ko gis waaye yemutoon ci gis ko xam ko rek waaye daf ko daa bind sax moo tax ku la gën a xam bindum sëñ bi gën la cee gëstu moo la ëpp xam-xam ci liy xew ndax dara du ko bett ndax kumpa moom fii rek la am waaye fa mbir yeey bawoo kumpa amu fa sëriñ Mouhamadul Mahmoud Ñang yàlla na ko yàlla dolli wér ak fanu gudd mooy sama maam dafa ma mas a nettali ne ma sëriñ Soye bu daf ko waxoon ne ko njool mbaa jàppoo ne ma mahfuus mooy fa fa suñ borom di wax ummul kitaab nga xam ne fa la lépp ne ne ko mbaa jàppoo ne lu ñuy lu ñuy bind nga fay fekk boo fa demee mu ne ko ah kay mu ne ko déedéet jëmm ya nga fay fekk misaal ko ko nee na ñu ngi fondement jumaa ji waaye dana ko jumaa ji ci misaal boo ko fa doon gis na muy mel bu sottee ba kenn du ko laalaat nga ko fay gise daane ko waaye nag fa ngay taxaw di ko seen day sori te day mel na ay looy xool ba di ko bëgg a seetantal mu jàll moo tax ku lay wax ci lu ñëwagul du la wax lu leer dëgg daane ko ngir man koo téye nag wala nga dem ba sës ca nii mën a xam lii lu mu ba ko bindaat ci say mbind sëñ Tuubaa ko yàlla may <coughs> moo tax li muy euh, gis di ko bind lépp faw day leer moo tax sëñ Abdul Ahad wax ne euh, sëñ Tuubaa lépp lu mu bind boo amee gis-gis gis ko ci lawhul mahfuus ndax fa lay toxoo mm-hmm. lépp lu mu wax it boo fi yàggee da ko danga ci teg sa bët te boobu muy nekk ci tuumuranke gu metti googu xasida gëm fa mujj bind ci géej gi nga xam ne keroog ba mu ko bindee ba noppi dafa àggal rek di julli yor yor tubaab bi ñëw taxaw ci kanamam bi mu àggalee rek mu ne ko dikkal eh, defaral say bagage dañ lay delloo Sénégal dañ lay may liberté liberté provisoire mooy wala xadd karam naa wax na ci ñaari bëyit yoo xam ne moo waral seen taxawaay yooyu ak doonte ñoom xamuñu sax ni mu demee dafa wax ne suñ borom soppil ma xoli nasaraan yii yii ma yóbbu nii soppil ma leen bañ jëm ci luy dimbali sama liggéey isrif quluban nasara yaa qadiru ila nasri dégg nga warut liye man xatan sa awhaana nag ma tàggatal ñi gën a tedd ci ñoom ak ñi doyadi ci ñoom ñëpp nañ jëm ci lu may dimbali ci sama liggéey bi xam man na ko wax na nag ma leen indil ñu bokk ci biir liggéey bi waaye dafa mel ni da leen seexlu waaye dañ leen tàggat bañ bañ mën koo dimbali ci liggéey bi ni nga xam ne dañuy jékk-jékk nangul murid yi foofe loo xam ne day mel ne sëñ ñu ko bañ loolu mooy tàggatuk suñ borom koo gi am faneen fu mu wax loo xam ne moo gën a yaatu sax dana isrif kulubal aadi képp ko noonu yàlla rek noonu Sëñ Tuubaa la xan azaya maan li nusrati <laughs> isrif qulubal ahadi han azhaya mahan li nusrati waaye wahdi bi gindil ci man ban wa fityaana waxambaane mm, yeeg màggat yi dégg nga am boo xam ne ba tey ci biir xasida googu la wax la ko wax manees na ko moomale foofa ak faneen fu ay yéefar ne dafa wax ne ko ba faw yow sunu boroom nanga saxal di di ma may ay futuhaat ci biir seen biir réew yi ay futuhaat ak ubbiku léegi foo dem fekk fa muridi foo dem fekk fa kër sëñ foo dem fekk fa mbindum sëñ Tuubaa loolu mooy futuhaatam ñi mu doon wax muy am ci biir àddina fépp foo fi dem da fi gis ay bisi sëñ Tuubaa yu ñu koy wooteel di fa wax ay waxam di fa jëf ay jëfam di fa melokaanam melokaanam te ñi jugoon taxaw ne ko li ngay def du fi sottee ña ngi fay taxaw di leen gis di leen xool te duñ ci man dara lii suq dawaa man futuhaatin akoonu biha bushra liman bi hudal islaami xaddaana loolu <coughs> am na feneen sax fu mu fu mu waxee lu gën a leer lii mooy wax ne wax leen ne leen joxar beneen ne leen danaa mujj ñëwaat ba ci seen biir réew yi taxaw ci seen digg réew yooyu di wax lii may wax di def lii may def te du ci man dara inni uxaatibun nasaara turra fii ardihim ci seen biir suuf yi hmm. te yaqanu boobaa da ne bi an na nii lillaahi man yàlla rek mooma moom te mooma mën a am abdan xadiman ab jaam laa ci moom di aji liggéeyal eh, yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. loolu moo waral bu ko waaw defee <coughs> eh, tawféex dëgg nag mooy bëgg-bëggu sëñ Tuubaa bu mu sàkku ci boroomam mu feeñe ci kam feeñe ci loxoom ko mu am tawféex <laughs> ndax ñoom ñoom murid yooyu nga xam ne yàlla dimbali na leen ndax bañ fa ñu ñu bari ci ñoom am na ci sëñ Xaadim si moom ak ñam àndal ñu ci bari yàgguñu France yàgguñu fa am na leen fa jiitu fuuf jamono seen blaat ba tey ñu ne fa waaye xëy na liggéey bi mënutoon a sottee ci seen loxo ndax du seen tawféex ndax suñu bay jaxat dane lu nit rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërum nit cërum nit ku bëggit ba fa danga àndal xer ak dëddu ak itte yow te wut nag keroog doylu far tëdd fa keroog doylu moo lay fagal wa naaju lor seral sa xol ak sa saw yaram yandu fa dégg nga te bul jàq kay rët mbirub yàqkat fa mbir may bayo bawoo yàqkat yëggu fa loolu tawféex la ci ñoom hmm. moo tax Euh, am nañ ci taw feex nag ndax ñoom ci seen bopp euh, bañ ko tàmbalee ba léegi yaakaar naa yi ma ci wuutee gun bareegut bu fekkee yaakaar naa ne daal bis ya nga xam ne dañ ko daa tollooleeg bis bii si ñam sa tuy def te doon ko defee ci ndigalam nga xam ne sëriñ bi moo leen woo ne leen bis bii muy def fii di ko defal xaside yi nga xam ne màggal xaside yi sëñ Tuubaa la ci jublu moo leen joxoon ndigal leen nañ koy def di ko ànd ak moom nga xam ne bis bi mu koy def lañ koy def. loolu nag bëriwut mooy juumut ñaari yoon lañ ko def. wala bu bëree bëri ñaari yoon du ko ëpp. yooyu daal laa fekkewut waaye boobu ba léegi. yëpp at mu jot damay dem ànd kook ñoom. li ma gis lépp nag mooy loo xam ne wóor na ma ne nañ koy defe bu sëñ Tuubaa ne fa woon jaasit duñ ko soppi. ndax li sëñ Tuubaa gën a bañ moom lañ gën a bàyyi xel te mooy jaxasoo góor ak jigéen dañoo bañ ba fañ koy defee. saal bi ñuy góor ñiy jànge bokkut ak sax far saal ba jigéen ñi jànge te loolu mooy li ci gën a ñor sëñ Tuubaa ndax sëriñ bi lu mu bañoon la bañ na ko ba njaareem gi ak fu mu masa nee rek keesukat jigéen ña moom dugg fa mooy doon deli bi gën a rëy ci moom fu ñu gisee tàngoor wa gën a métti rek mooy góor gum dégg ci kat jigéen ña te def fa dara mm-hmm. moo tax bis sax wax nañ ne na bis muy defarloo fii ci njaareem la sëñ Masamba boobu mooy jiite liggéey yi ñuy def ci kër gi yëpp day laxasaayu def tànki neen di jiite liggéey aw seng woo xam ne dañ ko war a tuxal te tam nekk ci wetu kër jigéen ñi sëñ bi ne leen tuxal leen seen seng yi te seen bët bu mu tegee kër jigéen ñi nga xam ñu koy tuxal ñëpp dañuy nekk ci genn wet ba sëñ Masamba sax am na seng wu ko xotti ba tànk bi di nàcc deret foofu sëñ bi ne ko Masamba solal ay dàll mu ne ko sol nañ dàll imaan Masamba yow laay waxal solo lay dàll la ko sol nañ dàll imaan bu ko gëddee ñetti yoon sëñ bi ne càll mu ne mu ñim nekkal fi nekkat su ma ko defoon rek yàqu ndax bari naa bari waa na digle lu muy digle fekk tere ko la ci jublu <laughs> kon nag ñoom ñi ko xam ñoo koy xam mm-hmm. waaye teguñu ci ab diir rek noonu yàlla bu mag bi Iblis soppali ko jëmmi sëñ Masamba waaxu wuti sëñ bi waaye fa mu juume mooy daa sol ay dàll xam boobu ba mu ne ko solo ay daal bu soloo ni daal bu koy ñëwee sol ay daal mun na ko bañ a xàmmee waaye da koo séen rek daan ne ko ah Masamba ki daal bu dee yaay Masamba ñëwal day xëcc ab xaal ne jox ma sama xaal bi rek mu ne pëcc daw. dégg nga ñoom dañoo xamoon sëñ bi. lépp lu leen digal ñu xam kon foofu la ko dem ci kër jigéen ñi tolloon am na ci mag ñi xaw ma sëñ ma bañ Njaay la xaw ma sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na ne benn bi sëñ bi woo na ko mu ñëw. mu ne ko dikkal mu dem ba ca magasin bi mu ne ko fabal foofu saakub xorom mu sob ko mu ñëw ba jëkkër jigéen ñi mu ubbi bunt bi ba tuuti des mu ne ko sànni gaaw te daw sànni ko mu tëj ngir loolu lépp lim ci jublu mooy fexe dox diggante nit ñi ak seytaane ndax seytaane pexe yi muy fexeel nit lu yomb mucc la na kay des seytaane ay daifa waaye nag mi muy jaar jaarale ci génn ci jigéen moo naqare mucc moo tax suñu borom ne inna kayda kunna azim wax ne pexem seytaan lu woyof la ba noppi ne pexem jigéen lu diis la li ko waral mooy pexe ma seytaan jaaral jaarale ci jigéen mooy di mooy diis ndax buñ ko tàmbalee ci yonente yàlla adam yàqal gam ko yàqaloon ci jigéen la ko jaarale te mooy soxnaam yonente yàlla yusuf ba mu ko naree yàqal ci jigéen la ko naroon a jaarale mm. waaw moo tax sëñ Tuubaa daa bañ jaxasoo góor ak jigéen wax nañu am na bés ku ñëw ci moom ne ko man di màkke fekk da ko yóbbante kenn ne ko neel sëriñ bi dama bëgg soxna te gis naa ko ma bëgg ma bëggoon mu dimbali ma ci ñu wax ko sëñ bi sëñ bi ne ko fu mu ko gisee ba di ko bëgg mu ne ko dafa am ndaje yu ñuy def boo xam ne bokk yee fay daje waaye duñ fa wax lu lu jëmul ci lislaam waxtaane seen bokk di waxtaane seen diine sëñ bi ne nañ dem fañ koy defee tonnil ma suuf sa ba mu set ñu sànni ko ci àll ba te na mujj tey moo ko déggati waaw moo tax lépp lu waay defal sëñ Tuubaa bàyyi ci xel loolu te loolu seet naa seetlu naa ko ci liggéey jotaay ba it la muy yàgg yàgg yàgg yàgg nga xam dañ koy tàmbali suba ci euh, ci suba wéyal ko wéyal ko wéyal ko ba fanaan ba xëyaat lépp noonu lay demee ñu jàng xasida di ko durus di ko yëkkati di jooy ngir sëñ tubaa di naan kafe di tudd fàttali ko baaxu sëñ tubaa loolu képp laa fa gis te bu fa lay neen amoon it ma xam ko ndax at yii yëpp fa ne te sama yitte jëpp mooy xool ful la moom xëy na sax awuma ko waaye nag xàmmee naa li may jariñ ak li may lor. te kenn mënu maa tax a jëm ci loo xam ne wóor na ma ne loolu sëñ Tuubaa neexut sëñ Tuubaa. waaw su ma ko fa gisoon. bu ma fa demee benn yoon du ñaar. waaw kon nag li ñu ci teg rek mooy ñaanal leen yàlla. gën leen a dolli gën leen a sàmm. te liggéey bi ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa ñu nangu ko mu nangu ko yaakaar naa ne fépp fu ñu fi defee bésub xasida dana neex sëñ Tuubaa dana ci bëgg waaye foofaa cay raw. ndax foofa ni mu demee léegi ni ma la ko waxee ñoom ñooñu ñoo fi ñëwoon jële fi sëriñ bi mm-hmm. waaw lu ñaaw lu ne ñu teg ko ci deram mm-hmm. tuumaal ko génne ko am réew diir bu yàgg te ñu ba ko bi mu bi ñu mi ñu yóbbu ko gànnaar mu jógee fi ñu yóbbu ko Ceyeen mu jógee fi ñu indi ko njaareem fukki at ak juróom xañ ko liberté yépp àgg na ci Tuubaa gi mu bëggoon njëkk gënoon a bëgg sax nanguñ mu dem fa ki mbokkal lépp muy suñ Mor Jaara sëñ Jaara nga xam ne ñoo bokk soxna Jaara ak sëñ Mor Anta Sali bi mu génnee àdduna sëñ bëggoon na caa dem waaye tubaab bi dañ koo xañ ba tey jii demut tiim ko daa yónnee sëñ bi Buso mu jullee ko yooyu yëpp nga xam ne ay liberté ni mu wujjee boromam dañ koo xañ ay liberté am dem ba jógee fii lu yàgg-yàgg fañ gënoon a sukkandiku ñoom ñoom tubaab yi ngir jàpp ne fa la ñuy jaar yàqal sëñ Tuubaa fa leen sëñ Tuubaa jaaraat wanaat leen ndam lu mu am ci ñoom ak gañe gum leen gañe ndax tubaab bi ñu ko indi njaarim dañ ne dañoo gis ne ñu ko topp dañoo réer jànguñu kon dañ ko indi ci biir taax yi ñi jàng tubaab neefa di jaxasoo ñoom bu defee liñ bëgg ci moom dañ ko am te fa nekk ñi ci ëpp dañoo jàng ba jeexal ba xam lu mel ne lu tubaab yi xam mbaa raw leen ca sax ak ñu ci bari ci biir kuréel bii nga xam ne ñooy def bi su xasida bu foofu ay cër yu kawe lañ am ci biir tubaab yi dafa liggéey ñu fonk leen respecté leen ba noppi ñu teg fii sëñ Tuubaa mu jaral leen lépp kenn ku ne ci ñoom jaral na la ñàkk sa alal jëpp hmm. li nga am lépp sëñ Tuubaa jaral na la ñàkk ko ngir ngir ngir ngir ngir fexe jëm ci lu koy neex loolu nag ko ndamul sëñ Tuubaa la loo xam ne ñu ñaan sëñ Tuubaa gën lañ cee dolli tawfeex sëñ Hamsatu nag hmm. ni nga xamee ne yàlla ci boppam moo ko dogal moo ko def saa yu ne dana feeñalal sëñ Tuubaa ñoo xam ne eh, dañ koy taawul liggéeyam bi kenn jiituwu ko ci ndax yitteem pas-pasam jomam ak sukkandiku ci sëñ tubaa te boolewu ci dara moo tax fépp fu fi nit di liggéeyale ci sëñ tubaa ci biir liggéeyam bi muy xasida yi ku ko yëg ku ko yëgut su ñoom sa la def royukaay ñii essi nañ ci moom ñii essi wuñ ci moom waaye ku essi wut it mi ngi fexee nu mu essee waaw kon nag yal na ko fi yàlla yàggal te may ko ak wér mm-hmm. ba lim naalal sëñ tubaa lépp mu àggale ko mm-hmm. bi xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. ñu ñàkk ay kàddu soññe ci murit yi nga xamante ni te ñooy def bis bi foofu ci euh, réew moom mu di France ndax day mel ni ñuy faral di wax ne fas lu mu daw daw du ñàkk nga làbbali ko dañuy faral di wax ne bis bu mel ni fu ko waaye defee baax na waaye rawatina foofu ñu koy defee wax nga ko léegi say biir wax waaye liñ ci gën a seetlu mooy pas-pas bu dog bi nga xamante ni am na ci ñoom euh, naam jaxasoo gi amut ñu mel ni yéen gis ngeen ko baax a baax a baax weesu ay jëmm yoo xamante ni ñi ngi fii di liggéey sëñ Tuubaa ci xasida yi wala fépp fu ñu mënti nekk rek ñu fexe di jaayante ba ngay egsi ci bis boobu kon day mel ni lool it beneen tolluwaay la boo xamante ni ñoom am nañ ko ci liggéey bi bu baax a baax a lépp luñ jàpp ne ñoom lii buñ ko ci dollee mu doon mbégtam sëñ Tuubaa ñu ngi koy def ndax sama dem fa man mii looloo ko sabab at mu jot ñooy lijjanti na ma fay ñëwee sama yoon du ci ne jekki-jekki rek laa fi war a jóge dem nga xam ne man ba ma tàmbalee génn ba léegi mësagumaa xam nu ñuy dagg bee sax xaw ma ko am na bis ku ma laaj dima ku ma woo di ma laaj ne ma billet xaw ma fan Maroc la ma doon laaj xaw ma fan bi billet bi ñaata la ma ne ko xaw ma ko ba tey ji yàlla xam na ne xaw ma nu ñuy dagg billet xaw ma nu ko te loolu lépp taalibe Sëñ Tuubaa yoo koy def ngir rek yaakaar ne euh, euh, teew gañ fay teew di soññanteeg ñoom ci Sëñ Tuubaa ndax niñ leen di dollee ñu it noonu lañ ñuy doolee ci sëñ Tuubaa ndax boo fa demee gis nañ ñii sori nañ seenum réew gis ñu kenn ku leen naan def leen lii mbaa bàyyi leen lii amut kenn ku ñuy séddit jëmmi sëñ Tuubaa rek lañ teg ci teg ci seen kanam la ñuy def moom lañ ciy sédd la ñuy bàyyi moom lañ ciy sédd loolu yow mi nga xam ne yaa ngi ci biir dëkkam bii mu wóor la ne mi ngi nii dana la soññ boo dellusiwaatee faw nga def ko bind waaw amuñu lenn luñ leen di soññee rek lu dul ne fii ñu nekk fala nañ wéy rek waaw na nag boo xasee doog ak yoon wéyal rek ku nar a dem dana la jot. Mm-hmm. léegi gën di waaree ka waxtaanee ka doon. Mm-hmm. waaw kàddu gi ñu bokk sant Sëñ Tuubaa ñun ñëpp rek. Mm-hmm. te bàyyi xel bu baax a baax nag ndax Sëñ Tuubaa de adduna ñoru ko. la ko ñor mooy bisu mujj ba bis boobu nag bu ñu fa àggee ñépp lay mën a wax kàddu goo xam ne du ñëpp ak koy mën a wax ku jàkkaarloog Sëñ tubaab ku ne dana la mën a wax ne maa la defal lépp waaye maa la defal lii. ñëpp duñ ko wax de kenn ku ne na fexe ba bu teewee ci kanamu sëñ tubaa bu ko sëñ bi ne maa la defal lépp it mu man ko ne lii maa la ko defal yàlla na ci yàlla dimbali asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Serigne Saliou Mbàkke xasida ci kàddu yu matala yooyu mbokk yi du ñu def lu may rek di leen jox dig daje rek suñu yeneeni élément waaye di jaajëfal bu baax a baax saa su nekk Serigne Abdoul Aziz Diop mi nga xamante ni it moo nekk ci xarale gi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel waaye rawatina mbooloo mi nga xamante ni ñoo nekk foofu ci réewum tugal tey waajal bis bu rëy bii nga xamante ni ñi ngi ko dippee màggalu xasida yi incha allahu rabbi ñu fas yéene ay jataay yu wuute yoo xamante ni dinañ leen ko indil ci wàccaayu bis bi xamante ni saa su nekk euh, bu événement yi ñëw rek mbokk taalibe ñi ngi ñu koy bàyyee xel bu baax a baax a baax kon fii la ñuy yemandek yéen di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu